waaye ku ci bëgg a am nooy def xanaa nga woote ci numéro téléphone bi 77 251 04 05.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 très performant d'une très grande résistance, éprouvé aux normes militaires IP68 et doté d'une alarme en cas de danger. L'entreprise Crosscall est le seul qui propose une garantie sur 3 ans. Contactez-nous vite dans nos boutiques showroom avenue Bourguiba et à Sébéguioune sur la Corniche 33 823 77 Digital Store, améliorez votre quotidien. ci àllu kiife bi jóge kiifa sarse ko mu ñëw dëkk bu naan bogge xeyre Mansour ñu di ko yóbbu ci dëkk bu naan tuf ne insan ab dex la boo xam ne ay cubaal la ñoo fa nekk boo ñëwee ñoom ñoo jéggal dex gi waaye ren nawet gi am Sénégal dafa maase ba tax na mu jur mu jur beneen bras de boo xam ne daanaka moo gën a métti dex bu mag gi daan jàll waaye nag Serigne Touba dimbali nañu ba wax dëgg yàlla benn nag desu fa lépp jéggi na ci nuñ ko bëggee woon di ko sante Serigne bi ndax ñun day lot nañ ci defal ko loolu ñun de wóor nañu ne bi ñu jéggee ba dajaloo taxaw daje nag yi xam na ne lii moom du ñun Serigne bi la ñu jóge fa dox fa trente kilomètres jëm dëkk bu naan Medina Gagné dëkk boobu ñaan man Medina Gagné nag fanaan nañ ci yoon bi xëy yegg ay dix heures enchaîné kon ñun bu ñu amee taw feexu ñu ñu féetewoo fii ci liggéey bi mu yëkkati kóoluteem teg ko ci ñun dañu koy sant waaw wax dëgg yàlla ci sant lañ toll waaye dañu koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér nañu ñaanal ñu ñëw ak jàmm indi ko Touba dañu xam ne waa Touba nañu waaj ñoo ngi ñëw ñoo ngi ñëw de محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام من له الأمر كالكمين